bàyyi góor eh, bon góor gi gënal ñu dem brigade wala ma yóbbu la par force yaay choisir. eh monsieur le policier. xoolal Macky Sall ak Ousmane Sonko ñoo ngi xeex. hey arrête-toi hey soo tooy fu da gaañu de sooy tëb du damm. eh El Hadj Sulu Ndiaye hey hey. yow moom bu dee yow rek doo ma jàpp mënoo daw sa mole hey arrête toi hey. hey Alaaji Suluk Njaay hey hey iya, yeewul kau da ngay nelaw kaw da ngay wax ni. ak seen ndel bu ngand bi jubal umu umu. mais Pulo yow lu kau ba nga may maa fii na nga def. eh dimbale ma may ma sama jaam bul ma waxati maa fii de. waa maa fii lu ma waxati maa fii laa ñu ne dëkk ba sama maam moo feebaroon. eh dëj ko maa ko tëjal sa gémmiñ ngi wax mu naan su maam moo feebaroon su maam dee na bu yàgg. yow lan moo tax nga jël xaalis jàmm naan conférence yi nga ah, xamoo dara munoo waxtaan amoo kam-kam. mais Pulo li ngay wax leerul la de man je suis un très grand conférencier wa koñ bi ay seytaane lañu moo ma neub leen sama bop man ak ñom Tafsir abdourahman Gueye ñay andi def ay conférence ci koor gi koor gu mu naan Tafsir abdourahman Gueye kaw mu ñaar lañ la fay si conférence bi de way sumay 100000 cent mille koy delloo ot uju naaj sam artat da nga ma jox sa 100000 ba ma koy laaj dogal kaar ma leg maa ngi ñëw su ma jaasi bi lay jël fekk la fi mu sopp ma mu war la. e eh, xol ma fi yow lay waxal téméré jinn bi ñu avancer da koy génne dé yow xaaral sax man dama ci bolé wax police la jëm. i police. xaaral ma gaaw génn dëkk bi wala gaay di ma embarqué. non du bëssi yi boppam moo soof. kii comme sama non rek. wéccat kessa la ko yoni pour mëna a daw gaaw génn dëkk bi balaa police di ma jël si. mais rek. bonjour monsieur comment allez-vous où est Aladji Souloukhou qui Aladji Souloukhou Khundjay. il est dans la douce cabinet. eh mon mi moy Aladji Souloukhou il est dans la douce xaw ma ça du mandé sama c'est mon zimo zimel. eh Nopil vous êtes en état d'arrestation on a des questions à vous poser ñu dem brigade Nagao. ne monsieur le policier taxawal taxawal xanaa balaa nga may yóbbu di nga ma wax lu ma def. ah yow xamoo loo def yow. non non waxal lan laa def xam naa dañu ma sosolati rek. waa koñ bi dañu ma soxoree. yow 500000 jàmbur yi nga jël encaissé ko nan leen conférence yi nga pour lan la. monsieur le policier man waxuma ko loolu de dama ko ne mu jël ma jour conférence bi may ranger siège yi di servir lekk yi. eh c'est bon góor gi gënal ñu dem brigade. wala ma yóbbu la par force yaay choisir. Eh, monsieur le policier xoolal Macky Sall ak Ousmane Sonko ñoo ngi xeex. hey arrête-toi hey soo tooy fu da ngay gaañu de sooy tëb du damm. hey eh, El Hadj Sulu Ndiaye hey hey.